bëri lañ may soññi lool fi mu ne ak ci tur mbooleem maam yi nga xam ne nii ñoo jiite liggéey bi nga xam ne nii mooy liggéeyu bàyyi bi. di leen sant bu baax di leen sant bu baax ak seen doom ak seen bëgg baax. ko waxee nee na waxul dëgg. xool ndax liggéey ba rafet na jëf ji réew mi mag na dox yi am na ndax xam ne tey jii dañoo am aw waxtaan am ci paas bii suñu kanam boo xam ne ñun ñoo ko woowoon ñoo ko ñoo ko woote mu ñaari bis ci benn programme ci benn ñaari programme benn bis te programme yëpp daayu la te yéen ñii suñu payee da ngeen koy jàll ndax lay def ñoo ko ànd kon ku jaar dayal ko ñëpp lan fay wax di ko def ñun ñëpp ñu teg ko ndax ñun ñëpp ñoo war seet ndax ñoo ko war kàddu yi dugub ndaxte ñaari kàddu la lay waaye ku jaar jaar yi koy ñi nga xam ne ni ñoo yor liggéey bii ci bis yi bàyyi bu dee àjjuma ak altine soxna Aliou Sylla jàllal bi di ànd ak ñoom sëriñ ak soxna Mbour soxna Aliou wax jàll jàmbaar baax na di ànd ak soxna Mbour soo pour ak ñi àndal ñëpp ci liggéey ay yëpp xale yi baax na di ànd sëñ Mambal Mbacke soxna Sani Diagne Darou soxna Mbaye jaar Darou Nane soxna Maguette Bousso Ndamatou soxna May soxna Mame Fatou Diakhaté Darou jàmbaar soxna ak xale ndaw yi xam ne nii muy soxna ndaw yi xam ne ñoo bokk daayira bi di ànd ak seeni yaay ak seeni maam ci liggéey bi. soxna Asou Gueye soxna Asou Gueye soxna Ami Ndiaye soxna Oumy Ndiaye soxna Ami Sall soxna Awa njaay ñoom ñëpp gis nañ seen pasteef seen taxawaay ci liggéey bi ak ñun àndal lépp waa talaata ñoom it soxna Khadima Diane taw féex di yàlla suñ Fallou Fall soxna lëy Mbacke Baari Jolof sang Gueye lay àndal ci mbala mi soxna Ami Diop Mbacke Bari Diouf Mbacke Bari soxna Juma Dieng Corniche ñii ñëpp di ay jàmbaar yoo xam ne nii ah ngiraaneen di ay jàmbaar yoo xam ne nii seen taxawaay ci liggéey bi foo ko takk wees na ko àllarba ji soxna Xali Mbeng Ndaamaatu di ana Sëñ Fàllu Buso soxna Maam Buso Sekk Ndaamaatu di ana soxna Sëriñ Kàbbuy Dieng ñing soxna tuuti njaay Tayba di am Ibrahima Ngom Taybatul Karim soxna Oumy Diagne Umul Xura Iliman Sène ah soxna Aji Ndiaye Baxbaat 1 Baye Sall Gaye soxna Faati Ndiaye Baxbaat 2 ñu leen jàppale ci biir bale deen taxawu di xool li ñu soxla ci ay baleeg ay sarpe di ko indi deen orienté fi ñu war a jaar ak fu des ak fépp mooy góor yi ñu lim léegi soxna Aji Ndiaye baxbaat 1 soxna Faati Ndiaye baxbaat 2 soxna Ummi Sàll Kër Ñang Baye Daam Sëy Baye Bada Sëy soxna Ñang bu soobee bay Moustapha Seck son Moustapha Niang soxna Seynabou Daraame Ndindi soxna Kumba Diouf Diop Sexaw ga soxna Jekka Diop Corniche Daara xadi soxna Xadi Mbeng soxna Xadi Mbeng Corniche ah ñii bala si dimanche di ànd waaw muy soxna Ayda Dieye soxna Faati Gueye soxna Issa Ndiaye soxna Nogay Ba soxna Mbène Ndiaye soxna Mame Diarra Thiam waa Wakana Xaqan soxna Fatou Diouf waa fédération sëñ Saliou soxna Ndeye Ndiaye di ñu ànd ak Mori Thiam ak suñu Abdoulaye Loum moo ñu ñoom ñëpp gis nañ seen taxawaay ak yéen ànd ak ñëpp kon nañu ñëpp nañ leen déglu rek ndax kàddu moom weesu wut pëlëg nag naka baax pëseet mat na lépp mat na waaye man déglu rek sama làmp mu waxaale ci mu wax waxaale ñëpp mu wax waxaale daayira yëpp ndax ñu mën a bu paree rek mën a àndandoo dem ci baas bi déglu waxtaan wi soo ko yëwee ko kon soxna làmp bisimilah. asalaamaaleykum bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin santati naa yàlla bu baax. di sant sëñ Touba di sant sëñ ba Bassirou di sant sëñ Afit Bousso suñ suñ jëwriñ di ci teg Fallou Mbacké sunu jëwriñ ñun ñuy liggéey ci biir jumaa ji te yàgg ak moom lool di gisuñ ci moom dara lu naqari di sant ñëpp bàyyiwuma kenn ndax su ma limee damay juum mbaa duma matal waaye tur yëpp xam naa ko te man naa ko ndax li ma yàgg ak yéen ci jumaa ji waaye lim bi laay bañ muy manqué waaye su ma nee sante yàlla sant sëñ Tuubaa sant sëñ Muntaxaa sant sëñ Aafe mi toog sant sama sang bi ci kër gi sëñ bu su malaaka xar naa bi sant Faalu Mbàkke rek sant naa ñëpp di sant nag soxna yi nga xam ne dañoo daje ci jumaa ji liggéey sëñ Tuubaa te ñoom ñëpp daa mel ni fi lañ ma fekk ndax ñi ma fi fekkoon daa mel ni ñi fi des te yàlla bàyyi leen fi mooy coro ñang mi tokki sama ginnaaw waaye ñi ma fekkoon ñoom yaa ceeg ka ñoom ak ñëpp saa borom moo def li ko neex te man nag lu ma am ci jumaa ji di ko sante ceeg ka lu ma am Touba rek laay wax sax lu ma am Touba sant naa ko aji ceeg ka mu sëñ Saaliw ndax ko la woon liggéey sëñ Touba teg la ci yoon wa ànd ko yow ba nga xam la ngay def bàyyi laak liggéey ba te dara yàquwu ca amu payam te yaa ceeg ka defal loolu kon sant naa ko di ñaan ay yaxam sedd yàlla yokk leeram tax ñu ci barkeem liggéey bi munu bàyyee noonu li def ni moom di ko liggéey ba suñu borom soxla noo xam ne soxla nu fekk ko àjjana ci barke sëñ Touba di sant nag jëwriñ ñi ma àndal liggéey bi ndax ku lim da ngay juum ba tey dafa am jëwriñ yoo xam ne dañoo topp ci man ànd ak man liggéey bi di soxna Xadi Gay mi toog moo topp ci man ci liggéey bi ci xidma bi ma di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal taxawaayam yàgg ak mbooloo mi topp ci kawam ñëpp ndax su ma nee xadi gay ni xadi ñaan ni xadi si ñaan ni sama secrétaire bii làng man di bind mi millions te dara du ci réer maam fay jaxate mi toog kon sant naa ñëpp bawuma kenn mënu ma leen lim ndax li topp sama gannaaw macha allah yal nañu yokk te wér sant naa ñëpp waaye su ma limee ñooñu lim naa ñëpp bawuma kenn ku ne xam ne ne yéen ñëpp laa bëgg xam ngeen ci seen bopp man xam naa ko di sant nag sama jëwriñ mbooloo yi nga xam ne ay jëwriñ lañ ànd ak man Fallou Mbacke mi jël leen teg leen ci sama ginnaaw kenn ko ne boo ñëwee jumaa ji mën la boolee nañ la ci werte bi nga ànd ak soxna làmp yéen ñëpp soxna làmpe seen jëwriñ ndax fi ngeen ko fekk ba ci soxna ami sili mi nga xam ne mooy sama kilifa di sama mag yilif ma ci boor bone sama jëwriñ la may wooye te baatu Fallou Mbacke bi moo tax ma dama ko wax waaye du ma jëwriñam mooy sama jëwriñ ndax boor bone mi sila ma ko juddoo ci sëñ Touba ma sant aji Xadi Gay nag sant Xadi Sañaan sant soxna Fat Jaxate sant sëriñ sëñ Saaliw sant ñi ma àndal ñëpp jëwriñ ñi laa bëgg nga limal ma ko ma sant leen acca jëwriñ ji jëwriñ yi wert bi ah, soxna may ja soxna may ja Firdawsi soxna Busa Seck soxna Busa Seck soxna Xadi euh, ko ku lim juum doo matal waaye kuy sol wert ci jumaay ji rek yorug bale mbaa nga yor reket ma morso mbaa ngay wër mbaa ngay ni mbalit aj làmp ne sa kàddu lay waxee waxut kàddoom ndax su ma fi nekkee ñu naan ma làmp yéen a tax kenn nit du dox ñu naan làmp loolu seex bi rek ko amoon ma làmp rek yéen a tax kon nag yéen seen kàddu laay waxee fii ma toog ci jumaay Sëñ Tuubaa ji di wax yéen a tax may wax sant naa leen gërëm naa leen seen kàddu laay waxe di wax seen ak cant guñ sant liggéey bi nga xam ne Sëñ Tuubaa dañ koo jox te ànd koog ñi nga xam ne ñi sunuy càmmiñ la ñi sunuy doom lañ ñi sunuy rakk lañu ànd ko ñoom di ko liggéey ci biir jumaay Tuubaa te yàqalu ñu ci dara yéen a joxe seeni kàddu ngay naa sant mbooloo mépp yéen ma ko sant kon nag jërë ngeen jëf cant gi man na a joxe dëgg yeggale li ci des auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw bu sant yàlla di nu sant Serigne Touba ñoo ngi nuyu Serigne Mountakha Mbacké di ko ñaan mu yàgg fi loolu di wér di nuyu sëñ Afia Bousso di ko ñaan fan nuyu sëñ Fallou di nuyu suñu jëwriñ di nuyu mbooleem ñi fi nekk ñëpp Mbacké ak Bousso beeg Faal Jataraak ñëpp rek ñu ngi leen di leen siyaar di nuyu sunu mbokki soxna yi di jéggalu nag ci kàddu gi ah, di soññ rek soxna yi di wax ne lii ñu def ren nañ xam ne du dara nañ ko xoole ne jàll na te fas yéene dënmal déwén fas yéene ñaan ci sëriñ Touba mi nga xam ne moom lañu liggéey mu tànn nañu bopp andi jumaa ji ñu sant ko bu baax nag nañ doon la santaal suñu waajur te sant sëriñ Touba bu baax moom mi nu tànn andi jumaam ji ñu di ko liggéeyal kon ñu jaajuwaat takkaasu ni laxasaay bu déwénee lii ñu am ren bu déwénee yàlla nañu am saka am asakaam barke sëriñ Touba kenn ku fi am di sa dërëm bu déwénee yàlla na nga yokk ba nga yëg ko barke Seexul Xaddim maa ngi nuyu soxna Lamp Diagne di ko sant bu baax ngir lu yaatu ginnaawam yaatu la ak mboolem ñi ñu ànd liggéey bi jëwriñ yëpp di ñaanal sëñ Seexuna Mbàkke suñu jëwriñ ji saa borom yàggal ko fi loolu mu wér barke sëñ Tuubaa mën naa boot ku ne jigéen ak a àndal waaye sëñ sëñ Seexuna muñal na ñëpp yaatal na ñëpp Mbàkke Bàlla yàlla na nga fi yàgg te wér barke sëñ Tuubaa di ñaanal sëñ Afia Bousso mii sëñ Afia Bousso mii kat jàngal na ma ba tàyyi tey jii boobu xaw moo ne six lii dina am di saam mbokk nag ci wet bu nekk ñoo ngi koy ñaanal fan gudd ànd ak wér di ko ñaanal ñëpp sëñ laat mi sama doom di ñaanal ñëpp sëñ Saliou Niang suñ caat mii ñoo ngi koy ñaanal bu baax fan gudd ànd ak wér di wax ne daayira Muxaddamatul ma génnul jumaay sëñ Touba ji lépp sëñ Touba la kon ñu sante ko yàlla bu baax ndax kenn ku nekk boo sañoon liggéey ci néegab yàlla waxuma laa nag néegab sëriñ Touba bii nga di ko liggéey fii nga xam ne dañ naa la fee la sëñ Touba mujj kon ñun loolu nañ ko sante yàlla bu baax a baax tey kenn ku nekk boo mënoon a wiir ci sa ruq bopp di xam la la sëñ Tuubaa defal ba nga tàmbalee liggéey bi ak tey jii di gis yokkute gu wér ci sa bopp kooku moom kenn wérantewu ko yéen ñëpp xam ngeen lool kon nañ doolee ñaanaat yàlla suñu borom fekkee waat ko déwén yàlla bu kenn manqué barke sëñ Tuubaa sa borom kàttan la nu may nu wér dooleel nu tamay ko njaboot gi ñuy jox ñuy andi barke Serigne Touba kenn ku ne la nga yéene ci liggéey bi saa borom defal kawe sa njort ñu ngi sant bu baax di gërëm ñëpp di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen lii ñu wax na kàddu gi ñu wax na waxaale nañ ko waa gaawu dimanche altine talaata àllarba ba ba alxames ñëpp bàyyiwun kenn ndax ñun ñëpp noo bokk liggéey bi sëñ Touba bi moo boole ñu di ko liggéeyal kon nag ñun ñëpp benn la amuñu différence ñun ñëpp benn la sëñ Touba tànnal boppam andi ñu di ko liggéeyal kon ñun ñëpp noo bokk kàddu gi ñu ngi sant bu baax leen gërëm dina ñaanal jàmm di ko sàkku ci waaw kay soxna si kàddu yi rafet na jot na ñu xam ne kon daal liggéey ren bi moom pës seef dëgg rek gën a feeñ bu xoolee daayira bu mag bi muy soxna yu mag yi ñoom trois million cinq cent quatre-vingt-dix mille nee na am na lu ñu waat ginnaaw bi bare bari bu ñu xoolee soxna ndaw yi xale yi cinq cent soixante mille soxna ami si la quatre cent douze mille waa Firdawsi trois cent dix mille li jaar ci Baye Sall cent huit mille ñi ñëw àllarba un million talaata six cent trente cinq cent dimanche cent seize mille muy six million sept cent quarante mille juróom benn million ak juróom ñaar fukki junni ak juróom ñett loolu la soxna yi dagale boole ko seen ñaq ci jumaa ji pësteef rek moo fecc ñu soxna ci la jóob onze mille cinq cent moo it ku yàgg jumaa ji la mu soxna ceek ñu ko àndoon kon ñu jox kàddu si affaire ubbi leen xol yi taataan te beesal yéene ji bisimilah suñu affaire. asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. soxna yi tedd yi ñu ngi leen di delloo nuyoo ci turu sëriñ Afia mi toog wax ni mi ngi leen di nuyu bu baax di leen sant bu baax di leen gërëm bu baax ci turu Cheikh Mouhamadul Muntaqa mi nga xam ne liggéey bii ab liggéeyama lépp lu fa waaye def moom nga ko defal kon kàddug cant yi ak ngërëm yi ak ñaan yi kàddug seex Muhammadul Muntaxa la wax ne sëriñ mu ngi leen di nuyu bu baax di leen sant bu baax di seere seen jëf jii nga xam ni dangeen koo jëf te yàlla rekk tax ak yonent bi ak sëriñ Tuubaa muy jëf ju sell ju tedd ngeen defe ko ci barab bu sell bu tedd muy jëf joo xam ne jënn jëf ëpp ko yaakaar ci jëf yi ñuy jëf ci àdduna bi ndax fi ngeen ko defee ak ki ko defal ak yéen ñii ko def kàddu yi nag du gudd kàddu yi cant rekk la ak ngërëm ak xamal leen ni jigéen yàgg naa sonn amub cër ci lislaam jigéen ñu baax ña àndoon ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam nii ngeen di def rek lañ doon def ak moom yonent yee ko jiitu woon it ña àndoon ak ñoom ci ay jigéen nii ngeen di def rek lañ daan def ak ñoom waaye suñu yaakaar Cheikhul Khadim mbooleem kilifa yu tedd yi mu àndaloon ku ci nekk ci ñoom àndoon nga ak ay soxna yu tedd yoo xam ne jëf ju mel ne jii ngeen di jëf rek moom lañ doon jëf sëriñ Afia wax ni yéen ñii toog bari na ci ñoo xam ne seeni maam liggéeyale woon nañ leen ci ka ci keppaaruk Serigne Touba muy ñi seen maam àndoon ak Serigne Touba wala ñu àndoon ak ña àndoon ak Serigne Touba waaye loolu lépp nag man xëy na mënoon ngeen ko doyloo di ko dundee waaye yéen gi def li ëpp solo te mooy fàggu mu ne kon nag lii ngeen di fàggu rek waay ñi nga xam ne yàlla mayu leen woon tawféex yi seeni maam bokk ca ma ña seeni maam àndoon ak Serigne Touba ñooñu. bu ñu xatal mbir mi nañu ko yaatal fasaale ci seeni maam fasaale ci seeni i wayjur te xam ne liggéey Sëriñ Tuubaa bii attan na lépp lépp lu ngeen fi gis rek lu mu rëy rëy liggéeyal Sëriñ Tuubaa moo ko fi andi kon nag su ngeen jëfee jëf ju toll nii te ñaar yi nga xam ne mooy li am njariñ ci ànd ak Sëriñ Tuubaa nee na ñaar yëpp yéen a ngi ci biir mooy ñaq ak ñoqi yéen a ngi ñaqal Sëriñ Tuubaa ndax li tàmbalee ci gaaw ba ajjuma di juróom-ñaari fan yépp bis bu nekk am na ci yéen ñii ñoo xam ne ñu ngi ci biir jumaa jii di tuur seen ñaq ngeen jëmmi Serigne Touba ba dool yëmu leen ca waaye tey jii yéen a ngi ñuqi lim bu am solo bi teewal ko ci liggéeyub Serigne Touba bii waaye nag fi ngeen ko teewal itam muy bis bi nga xam ne moom la Serigne Touba tànnoon ngir sante ko yàlla mu mel ne kon yéen ngi liggéeyal Serigne Touba waaye di sant yàlla nag di ko santale Serigne Touba. ci li ngeen di liggéeyal Serigne Touba loolu mooy li Cheikh Mouhamadul Mountakha doon wax rek euh, liggéeyal Serigne Touba jaamoo ko yàlla jaamu yàlla liggéeyale ko Serigne Touba yéen dafa mel ne ci loolu rek ngeen nekk kon nag jërë ngeen jëf mu ngi ñaan Serigne Touba mu nangu lépp te barkeel ko te barkeel seen jaboot te ngeen yaatal nag seen ubbi seen xol te yaatal seen yéene te xam ne lépp lu ngeen ci fas rek mën ngeen ko cee am da ko ci am sax lépp lu ngeen ci fas da ngeen ko ciy am. kon nag bu leen ko xatal bu leen ko tuutal bu leen ko néewal waaye ku ngeen xam wala ku ngeen am rek fas leen ko ci yéenee jariñ te xam ne mën na cee jariñu àdduna mën na cee jariñu alaaxira ñu ngi sant nag mag ñi di sant ndaw ñi bu baax a baax a baax surtout nag ndaw ñi nga xam ne nangu nañoo topp wammatu ci ginnaaw mag ñi ànd ngir liggéeyal yàlla liggéeyal yàlla kat bari na buñ ko daan wax ñu bari dañuy jàpp ne mag rek moo ko war a def waaye nag alhamdulilahi rabbil alamin yoonu Serigne Touba bi weddi na loolu léegi ndaw ñi ñu ngi futtiku li mag ñi bëgg ci lu baax ñoom it ñu bëgg lu ni mel ba tax na ñu ngi góor góorlu bu baax ci seen ginnaaw jataay bi gis nañ ci ay ndaw yoo xam ne toll woon nañ ci àdduna waroon a nekk di wuti ay takkaay wuti toilette di xencu leneen lu bokkut ak lii ñuy xencu waaye loolu lépp ñu ne ko fa ñukk ñëw fii di xeñtu yàlla ak yonente bi ak Serigne Touba loolu mat naa sant yàlla bu baax a baax a baax a waaye yen ñi nga xam ne yéenay mag ñi nekk seen kanam itam gàcce ngalaama ndax yéene leen mat ci liggéey bu tedd bii xemmem loo leen ko ba ñu bëgg ko kon nag jërë ngeen jëf yéen a ngi liggéeyal yàlla waaye yéen ngi liggéeyal yàlla itam ci jaami yàlla yi jërë ngeen jëf yàlla na yàlla nangu liggéey bi teñ teewaat fi ni ngeen déwén kenn bañ a manqué te kenn ku nekk suñu borom yokk ko yokk ak njabootam barkeel ko kenn ku ne lam yéene ci boppam yéene ko ci ak njabootam yàlla na ko Serigne Touba defal ci barkeb bis bu tedd bii nga xam ne moom la ñuy jublu barkeb addee ju tedd yi ngeen joxee ci barab bu tedd bii te jox ko Serigne Touba mu tedd mii attan na lépp yàlla nañu ko ci defal wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa